Nous internet yi ngi leen nuyu di ziar di wax euh, di abonné bi lu ci am solo la euh, ñu ñëw ci match bu Tottenham bu Pape Matar suñu international sénégalais ak tay la deuxième titularisation ci saison bi euh, première période bi actuellement 1-0 Le suñu international sénégalais Pape Matar def na passe décisif ci James Maddison à la minute mais lu ñu son rek moy Pape Matar titulaire la tayji jii te confirmer waat na que ni eh, potentiel bi mi fi talent bi mi fi ngir imposer wu ci club boobu di Tottenham et li day wane encore une fois que ni eh, jour bu la joxé temps de jeu nga am temps da nga def li nga bëgg def daw Pape Matar amul won temps de jeu bu doy ngir imposer wu fi ci Tottenham mais ren coach bi jox na confiance. diko jox ay minutes muy joué donc motax muy woné bopam donc actuellement Pape Matar Sarr commencé na def saison am solo euh, tàmbalima saison bu am solo foofee ci Tottenham donc début bi saison bi commencé dugal na benn bi def passe décisive donc tey ji donc mu nekk lu am solo match bi nag jeexagul ñuy ñaan rek mu dugalaat incha allah wenn di lay ko ko wax jaa ngeen jëf